internet sene info international jërë ngeen jëf ñu am mbégte ak contentement ba tey di leen dalalaat ci seen yoor yooru sene info ma di ci ànd ba tey ak sama nattaango bii di Boursin Coumba Ndoffène ma bàyyi ko mu nuyoo ñu daal di tàmbali waxtaan bi Boursin waaw soxna Asel kon maa ngi lay nuyu di la bu baax a baax di nuyu itam bokk internet yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel saa su ne suñu différentes plateformes yi yu Sene Info site bi chaîne YouTube bi page Facebook bi Instagram ak euh, yeneen yi di amaan mbégte bu baax kon euh, di jàkkaarloog ñoom ci yor yoru Sene Info waaw jërëjëf euh, Boups yi ne tey nag dinañ waxtaan si ñeenti point bi si njëkk nag mooy sport suñu gaynde yi nga xamante ne nii jëlee nañu ndam fële ca Alger ñu continuer ba tey ak inauguration wu complexe Cheikh Ahmadou Lo Khadim bi ñuy tey ca Touba ak gàmmu Taïba Niassène bi tay la tamit ñu fas yéene si waxtaan suñu jógee si loolu ñu jeexalee waxtaan bi rek am meeting bi nga xamante ne nii benn boo ko yaakaar amaloon na ko démb ca Pikine. ñu tàmbali waxtaan bi rek si suñu gaynde yi nga xamante ne nii jëlee nañu ndam ci Alger nekk CHAN 2022 bi ba bi la nga indil ñu si quelques développements rek Bour Sine. Euh, waaw soxna Asel comme ni nga ko waxee euh, barke démb la euh, gaynde Sénégal équipe locale bi. am ndam lu am solo fële ca Algérie gannaaw bi nga xamee ni nag euh, fubal nañ jogante ba dem ci li nga xam ne moom mooy finalu championnat d'Afrique des Nations muy CHAN ñu daje woon ci nag ak ñi nga xam ne sax ñoom ñooy pays organisateur bi muy Algérie final ba nag euh, comme ni nga ko gisee métti woon lool fubal nañ sax ba temps bi jeex kenn amu ci bit ñu dem nag li nga xam ne moom mooy. Euh, série de penalty waaw ba def prolongation yi jàll kon football nañ daal ba série de penalty yi ci série de penalty yooyu nag Sénégal yi ëpp chance ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñii di waa Algérie ñu dugal juróomi bit ñee dugal euh, ñeent loolu nag tax kon ba ñu am ndam lu am solo loolu loolu nag dafay dafay lu am solo parce que depuis 2009 booy xool ne Sénégal dañuy def résultat bu baax ci xam ne moom mooy kon championnat d'Afrique des des des nations coupe boobu ñu jël nag. day am solo lool ñoo fekk si sax yeneen ñaari coupe muy coupe d'Afrique bi nga xam ne jëloon nañ ko ak li nga xam ne mooy coupe CAN euh, bis soko bi euh, fi mu nekk nii daal kon mën nañ ne euh, footballu Sénégal daal mu ngi ci ay guddi yoo xam ne mm-hmm. guddi guddi guddi guddi yu neex la guddi yu neex a neex la ci loolu itam démb ñibbisi nañ ñibbisi nañ mm-hmm. xawoon na guddi bi ñuy ñëw wante teerawul am nay supporters yoo xam ne xaar nañ leen bañ yegg si teertu nañ leen njiitu réew mi Macky Sall ak nañ na leen euh, jox leen sax nouvelle bu neex nee na maanaam dinañ leen jox ay prime spéciale mhm. yoo xam ne ku nekk di nga am 10 millions de francs euh, CFA mhm. euh, ak terrain boo xam ne ko may ay terrain fii ci fii fii fii ci Ndakaaru loolu nag ñoom la ak ñi nga xam ne ñoom ñooy équipe bi soccer bi ñoom ñoo koy bokk ak staff bi ñaan mhm. nag ñoom kon ku si nekk di nga am di nga am boobule neexal ba léegi it njiitu réew Macky Sall it gannaaw bi ko président fédération Sénégal football sàkko ngir mu jàppale football local nee na kon dinañ amal ab programme boo xam ne kon ngir jàppale suqali li nga xam ne moom mooy football local euh, le ndax xam nga rek football local moom dafa am solo si réew football local euh, bu développé rek euh, daanaka li nga xam ne moom mooy équipe nationale ba. day day comme ni ko sama ndaanaan bi di waxee Omar Pène ci wéyam boobule mais dégg na doyen Abdoulaye Diaw <laughs> mu naan euh, football ci réew moom bu club bi baaxee rek équipe nationale ba day dëgër. kon nag euh, lii lu baax la ci football Sénégal euh, ci football local bi mën na sax mën na sax tax ba ëllëg bu entraîneur def sélection dina sax am ñoo xam ne kon dina leen jël ci équipe locale bi. Mhm. balaa muy jéggaani yenn sax ay joueurs yoo xam ne peut-être amuñu performance yi amuñu yenn temps de jeu yi kon dina ko permettre ñenn ci effectif bi mu mën leen jëlee ci li nga xam ne kon moom mooy. joueur logo yi nekk fii fii ci réew mi soxna Seck. jërëjëf Bour Sine ñu daal di continuer rek ak inauguration wu complexe Cheikh Ahmadou Khadim bi nga xamante ni ñu ngi koy amal tey fële ca waaw loolu it lu am solo la muy am bésu ba tey bi comme ni nga ko waxee inauguration complexe universitaire euh, Cheikh Ahmadul Khadim pour l' et la formation nekk fële ca Touba muy nag euh, ab. Euh, infrastructure boo xam ne am na solo lool nar na am solo ci li nga xam ne moom mooy euh, jàng ak euh, jàngale jëmale ci wàllum diine ak ay science daal yaakaar naa étude islamique ak science ak yi ni mel muy nag infrastructure boo xam ne dépassé nañ ci lu toll ci 37 milliards. de francs CFA son asar ma loolu du du lu tuuti muy nag euh, benn euh, bâtiment administratif euh, boo xam ne nag dina habilité li ñuy wax ay infrastructure pédagogique et sociale ba pare nag nee nañ pare na pour accueillir lu toll ci dix mille apprenants maanaam dix mille ay ndongo dinañ fa fas yéene jànge ci li nga xam ne kon mooy boobule euh, université euh, di euh, kon université comme ni ma ko waxee sànq complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim foofule ca Touba. d'ailleurs sax njiitu réew mi Macky Sall ñu ngi koy xaarandi kon foofule ji tey ca Touba bu muy jotee mu war a assister kon ci inauguration boobule eh, mbir nga xam ne kon am na solo lool lool lool ci li nga xam ne moom mooy eh, éducation eh, soxna Astel. waaw si ni comme ni nga ko waxee rek mu nekk lu am solo boobule université bu ñuy inauguré tey jilee ba tey rek ñu jàll si gàmmu bi nga xamante ni ñu koy amal tey ba Niassène nekk gàmmu boo xam ne dañ ciy célébré juddu kii di Maulana Cheikh al Islam di fondateur Fayda. si loolu ma bàyyi la nga am euh, ay euh, développement yu ci indi. soxna Asel comme ni nga ko waxee bésub tey bi foofule ca euh, Taïba Niassène diggam ak Kaolack toll ci cinquante cinq kilomètres ñu war fa màggal nag juddug ki nga xam ne moom mooy Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci mm-hmm. Baye Baye Niass yaakaar naa moom nag nekkatul ku ñuy présenté waxuma fii ci Sénégal sax. Mm-hmm. wala ci Afrique wala ci monde si koo xam ne nii. Euh, dañ koy présenté yi ndax euh, mm-hmm. figure islamique la boo xam ne dimension internationale la am muy koo xam ne nag euh, liggéey na lu am solo ci li nga xam ne moom mooy diine l'islam rawatina ci tarixa tijaan bi nga xam ne kon ci la bokk moom Cheikh al Islam Baye ne nit koo mm-hmm. xam ne Euh, panafricaniste la maanaam ku gëmoon li nga xam ne moom mooy Afrique la Cheikh al Islam booy xool sax euh, concept de l'Afrique aux Africains bokk na ci ci ñi nga xam ne ci ñoom lañ ko njëkk a déggee l'Afrique aux Africains euh, muy kon mu nekkoon ab panafricaniste nekkit koo xam ne ku ku daal ku tasaare l'islam la ku wër àdduna la bëri na ay tukki ak jëflante ñoo xam ne jëflante ne ko ak ñoo xam ne ay chef de ay chef d'état lañ différents chefs d'état muy Euh, muy ci Afrique wala muy wala muy wala wala muy bitim réew nekk na koo xam ne it ñu ngi naan euh, bu nekkul ki ëpp ay taalibe ay disciple ci àdduna bi it bokk na ci ndax boo jëlee Nigéria gee nga xam ne rek kon. Euh, Euh, am na fa ay taalibe yu bëree bëree bëri euh, ay dizaine de millions la ñuy wax. Mhm. foofu leen di yaay day am na chaque année benn gàmmu boo xam ne gàmmu Nigéria dañ ko fay amal mu ngi am bu gàmmu Taïba bi weesoo yaakaar après ci la di nga dégg ay fan yi rek ci kanam. Mhm. li nga xam ne moom mooy gàmmu Nigéria dina am foofu. Cheikh moom nag bu ñu koy wax euh, mënuñu see ñeexal xanaa rek peut-être loolu ñu ci xam tuuti. <laughs> loolu ñu ci xam tuuti rek uh-huh. lañ ci lañ ci lañ ci wax lañ ciy wax. ci loolu sax euh, peut-être it ñuy jaale ñi nga xam ne it ñoom ñooy waa Médina euh, ak euh, communauté musulmane parce que am na benn événement bu malheureux bu ñu wax ñu ne ñoo xam ne dañoo bàyyeekoo ndax ma gàmm gi maanaam gàmmu tey boobu comme gàmmu Kaolack day nekk loo xam ne dafa am dimension internationale nit ñi dañuy jóge feneen di ñëw am na ñoo xam ne ay cas parce que ñu ngi naan am na ñoo xam ne ay disciple yu jóge Nigéria ak Niger bu ma juumul ñu ne dañoo nekkoon ci ay bus di rallier Kaolack mais dañu ne bi ñu tollee ba Burkina dafa am ay def ko te ñaawteef yu leen dogaale ñu ne ba am 19 personnes yoo xam ne faat nañ leen si muy lu métti kon loolu ñu ngi jaale nga xam ne ñoom ñooy waa Medina Baye ak ñaari dëkk ñu yëpp euh, ñu ngi leen ñu leen koy euh, jaale ñi nga xam ne ñu ngi dem foofu tey ba jot war nañoo yegg sax mais du ñàkk am na yoo xam ne ci bés bi la ñuy dem ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu passé li nga xam ne moom mooy euh, gàmmu ci jàmm ñaari fay ñaan nangu ñu fekkee ko waat déwén incha allah waaye jërëjëf bokk si waxtaan bi am na solo torop ñu daal di leen ñaanal yoonu jàmm ñi nga xamante ni ñu dem ci gàmmu Taïba Niassène bi nga xamante ne ni tey la si loolu tamit ñu daal di jàll si meeting bi nga xamante ne ni waaye benn bokk yaakaar amaloon nañ ko démb fële ca Pikine ma bàyyi la nga indi ci ay euh, développement waaw soxna Asel comme ni ko waxee démb la woon euh, benn bokk yaakaar amal meeting bu mag foofule ca Pikine ki nga xam ne nag moom mooy euh, Amadou Ba premier ministre di lieutenant bu njiit réew Macky Sall teewoon fa ak ay responsable yu APR yu bari wante tam yu coalition bu Benno Bokk Yaakaar bi ñu bëri nag euh, gis ci ne ab tontu la boo xam ne kon dañ koy indi gannaaw bi nga xamee ne kii di Ousmane Sonko amaloon na meeting fële ca Kër Massar meeting bu bëri woon nit euh, loolu sax ñenn ci ay yi nag yaakaar ne nag démarche boobu sax bu fekkee ne maanaam loo xam ne dañ koo def ngir tontu li nga xam ne mooy meeting Ousmane Sonko bi ñu gis ne kon loolu démarche boo xam ne bu baax la ci bi nga xam ne kon moom mooy euh, camp présidentiel Macky Sall ak i ñoñam ndaxte nag euh, du tey rek dañuy faral di gis saa soo xam ne rek eh, njiitu Pastef euh, peut-être génn na Ousmane Sonko def benn conférence de presse wala mel noonu gis nañ ci passé bi ñee tam immédiatement dañuy gis ñu génn def benn réaction loolu tamit tax ba am ñoo xam ne dañ ne daal lii ab tontu la bu ñu indi eh, ci daal eh, meeting boobu nga xam ne eh, kii di Ousmane Sonko amoon na kon fële ca Kër Massar wante nag ñoom waa APR ñoom giseewuñ noonu ak waa benn mbokk yaakaar ñu ne ñoom seen agenda la boo xam ne kon bu ñu bu ñu teg la di ko togg moo tax ñu amal kon boobu le meeting démb foofule ca Pikine bu weesoo loolu itam suñu naataango yu Walfadjri dégg nañ ñu ne meeting boobu jot nañ ca dépensé daal lu toll ci quatre-vingt-dix millions Walfadjri ñoo xam ne li ni mel ñu ne nag ñu ngi ko sax tuddee ñu ne quatre-vingt-dix millions ngir rek tontu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko bu dee loo xam ne nag lu am la moom doy na waar ndax ak fii réew mi toll moom jël quatre-vingt-dix millions de francs CFA di ko euh, kon def ci li nga xam ne kon ab meeting la ngir euh, loolu bu dee nañ ko waxee noonu la amee kon euh, yaakaar naa ne mbir mu. doy waar la soxna Sène loolu daal kon euh, loolu laa la ci mën a wax. ci bitim réew. jërëjëf euh, Buur Sine comme ni ñu ko waxee rek xam naa ñaareelu pàccu waxtaan bi dañ koy daal di continuer ak suñu invité bi rek di Amadou Diop Kartel nekk président parti doxal Sénégal moom na fas yéene naa doon candidat présidentiel wu 2024 ma bàyyi ko mu nuyoo ñu daal di commencer waxtaan bi ak moom. bismillahi rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uxdatan min lisaani yafawu xawlihi assalaamu aleykum waraxmatullah buur siin kumba ndoofeen salaamu aleykum soxna Asel maa ngi lay ziare bu baax a baax mhm. di leen ziare yéen ni nga xamante ne yéenay euh, téléspectateur u Sene Info International am mbégte gu rëy ñëwaat fii ci sen plateau waxtaan ak yéen incha allah ci xew-xew jamono Euh, monsieur Diop Amadou xam naa sama laaj bu njëkk rek euh, peut-être dama koy euh, jagleel li gën a actualité peut-être si wàllum politique muy démb gis nañ ñi nga xam ne ñoom ñooy benn Bokk Yaakaar amal ab meeting ak yañ fa wax ana nan nga ko jàngatee. jërëjëf Bokk Sine laata may tàmbali samay kàddu damay commencer jaale sama waa koñ sama waa quartier sama waa commune. di commune Grand Yoff ak euh, Imam Tall mi nga xamante ne wàññeeku na fi ci fan yee ñu weesu euh, ci anam yu doy waar anam yu yéeme waaye sunu borom moom moo xam ni muy bindee jaamam ak ni koy jëlee duñ def dara lu dul mettit lu anam yi nga xamante ne demee na ko ginnaaw ay fan yi nga xam ne ñu ko doon seet di ñaan sunu borom bi dara tëwul mu yërëm ko jéggal ko te xare ko àjjana yi gën a kawe te am nañ ci yaakaar doonte imam la woon moo ñu doon wan yoon di ñu yal na ko yàlla fay yiw ak lépp loo xamante ne daan na ko def ci lu baax ngir ñëw ci sa ci sa question Boursine Boursine politiciens yi amee nañ ñu man loolu laa koy analyser de manière générale euh, démb fale ci Pikine waa benn Bokk Yaakaar def nañ fa ab rassemblement bu yéeme comme it waa Pastef bu Sonko niñ defee woon Kër Massar effectivement c'est une réponse politique pour képp koo xamante ne yaa ngi analyser situation politique bi am ci Sénégal nga xam ne c'est une réponse waaye man euh, jàngat gi ma ci am mooy que Sénégal moo ma ñor Sénégal moo ma ñor dans la mesure bu fekkente ne Pastef dañuy rassembler wu ngir wane seen doole kii di Benno Bokk Yaakaar rassembler wu aussi ngir wane seen doole yaakaar naa ne doole gi nga xamante ne moom la ñu war a jiital mooy doole askan wi ci seen bëgg-bëgg. ci li ñuy xaar ci ñoom ci li ñuy séntu ci ñoom ndaxte bu fekkente ne camp wu ñii di Ousmane Sonko taxaw nañ woote meeting di artu tant euh, camp wu ñi nga xamante ne ñooy Benno Bokk Yaakaar tamit woote nañ meeting di dànkaafu mais ça veut dire que ci affrontement lañ jëm te affrontement bi c'est inévitable laata nañuy egg ci loolu man damay woo képp kuy kilifa diine kilifa aada képp kuy acteur politique Sénégal te jàmm tax laa jóg ndaxte aussi bu ñu fàtte. quand Ousmane Sonko seen électorat bu ñu calculer ba calculer ça ne dépasse pas un million d'électeurs quand ki nga xamante ne mooy Macky Sall seen électorat bu ñu calculer ba calculer duñ dépasser un million huit cent d'électeurs le Sénégal fait dix-sept millions d'habitants mais dix-sept millions d'habitants du trois trois millions de personnes ñoo leen bëgg jël en otage bëgg jël dëkk bi bëgg fi imposer seen loi ça veut pas dire que li nga xamante ne moom la sept cent mille électeurs Ousmane wala un million d'électeurs Yewwi Askan bi li ñu décidé moo war a am Sénégal alors que doomu aadama yi ñu ngi saa su nekk ñu ngi xëy di jëm wut lu ñu suturloo lu ñu lekk lu ñu naan lu ñu téye seen njaboot lu ñu fajoo loolu mooy priorité dëkk waaye dëkk boo xamante ne depuis presque six mois coow li lépp mooy teel Ousmane Sonko bàyyil Ousmane Sonko dëkk bi ñi nga xamante ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi artu di menacer alors que man menaces yooyu déjà rafetlu wu ma ko ndaxte man je suis pour une logique mooy la république nekkuma ci camp Ousmane Sonko nekkuma ci camp Benno Bokk Yaakaar. ci kaw peuple bi laa nekk te peuple bi li nga xamante ne mooy fondement bi mooy socle bi c'est la république te république li ko tënk mooy la constitution ci constitution boobu nag laay delloo Sénégalais yi di leen xamal ne que muy camp pouvoir bi buñ toogee tey di leen wax ay mbirum ñetteelu mandat coow ñetteelu mandat jotagul nañ liggéey nañ lijjën suñ bopp waxtu coow ñetteelu mandat bés bu jotee danañ ko fajal suñ bopp ba mu mot kii di camp Ousmane Sonko yéeg nañ fi fan yi weesu euh, ak. Euh, Euh, coow lu rëy surtout li koy euh, jotale kii di Mame Mbaye Niang euh, ñun doxal Sénégal benn position lañ ci am suñ yoon nekkul ci li leen jotaleeg Mame Mbaye Niang ñun kenn rek la ñuy déglu mooy fi mbax na rek nekkee benn ndaxte bu fekkante ne Ousmane Sonko ci wàllu boppam wóoluwul justice moom mii du jug mukk dem seeti justice di porter plainte ci coow 94 milliards c'est parce que wóolu na justice bu fekkente ne Mame Mbaye Niang am na yaakaar ne xëy na justice dana ko jox dëgg ba mu sol daalam dam porté ji plainte bu boobaa niñ génnee coowu politique te bàyyi justice def liggéeyam am na yaakaarit ak professionnalisme ñi nga xam ne ñooy acteur de la justice ñii di magistrat yi ñii di juge yi que incha allah danañ àtte ci seen axulaay taala donte du am parparloo donte du am mbirum politique am na yaakaar ci justice Sénégal boursin euh, Amadou am solo jàngat euh, yooyu xanaa damay enchaîner rek ci beneen euh, ñaareelu laaj récemment gis nañ nga rencontré kii di aminat Aminata Touré gannaaw bi nga xamee ne nag génn nañ ko dàq nañ ko assemblée nationale ca procédure boo xam ne ñii di waa groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñoo saisir assemblée nationale kon waa PDS jàppale leen sa ba ñu ba ñu ba ñu dàq ko d'abord ci dàq bi euh, noo ko gisee ensuite nga ñëwaat ci rencontre boobu nga xam ne yéen ñaar am ngeen ko. jërëjëf Bour Sine euh, damay sawar trop ci tontu ci question boobu ndaxte euh, li ma njëkk yëkkati ci gisee Aminata Touré poñ bu njëkk bi nga soulevé ci la bokk maanaam dàq biñ ko dàq d'ailleurs looloo tax ma soloon sama dàll dem seeti ko. dem seeti ko ci tàmbali ba di ko mastaw ci génnee gi nga xamante ne moom lañ ko génnee biir assemblée nationale te dëppwul benn yoon ak charte yi doxalinu assemblée ak charte suñu constitution réew muy benn ñaareel bi dafa doon jigéen te man suñu boom dafa def dama fonk jigéen ginnaaw sama jur jigéen bu ma gis dama la fonkal sama wàllu bopp ba gis na ba tax na su ma gisee jigéen ñu koy néewal doole lépp lu ma mën ci kàttan ci mën-mën ci xamin ak ci ci ci xam-xam danaa ko def ba mën la jàppale nga mën a génn ci xeex bi nga xamante ne ci nga nekk dëgg la nag waxtaan nañ lu bëri waxtaan nañ ci réew mi waxtaan nañ ci ëllëgu politique moom mii di Aminata Touré waaye xamal naa ko it sama bëgg-bëgg incha allah doon candidat en deux mille vingt quatre te am naa yaakaar ni incha allah ak euh, li ñu jot a nekk di waxtaan ni bés buñ ci tollee danañ ànd ñun ñëpp muy moom muy ñeneen ak ñeneen ñeneen ñi nga xam ne danañ ñëw fekk si ñu daal di taxawal coalition bu mag boo xamante ne lu bokkul ak euh, yeewi askan wi wala Pastef bi nga xamante ne xëy na ci suñu déggin ñu ngi woote violence lu bokkul ak Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ñu ngi fi toog tey di menacer ak di wane doole war nañ mën a am ak coalition boo xamante ne Sénégal kese moo ko tax a jóg urgence su sénégalais moo leen tax a jóg ci seen i bëgg-bëgg ñu mën a yor réew mi ci jàmm doxal réew mi ci jàmm naatal réew mi ci jàmm. mais Aminata Touré moom Benno Bokk Yaakaar la bokk de noo gisee loolu Benno Bokk Yaakaar moom ngay ngàññi Aminata Touré fa la bokk fa la bokkoon. voilà très bien vous avez bien fait de préciser <laughs> fa la bokkoon car ça veut dire que donc bokkatu fa te tey bu ñu demee ba génnee ko ci groupe parlementaire ba dàqalu ko assemblée nationale c' est parce que dañoo gis ne que jéego yi muy teg ci ñoom ci liñ jot a jàpp jéego yi muy teg ak euh, doxalin gi mu gi mu am ci biir assemblée jàpp nañ ne bokkutuñu ci moom moom it mu nekk nit koo xamante ne nit ko am fulla am hauteur bi coow li amee lépp euh, géré na ko avec froideur <clears throat> avec calme daal di prendre acte donte nag am na ay démarches yoo xam ne commencé na ko teg ngir mën leen topp ci yoon ndaxte décision bi ñu jël dëppuwul benn yoon ak yoon. Aminata Touré dëgg la benn Bokk Yaakaar la bokkoon d'ailleurs ba ma toogee di waxtaan ak moom li ma ko njëkk laaj mooy que euh, kii di Macky Sall bu la woowaatee mbaa doo dellu ci moom ndaxte <laughs> àdduna dafa gudd te gisoon nañ ko doonoon na fi ab premier ministre. tàggoo ak Macky Sall tàggoo gu méttee métti xëy subateel ñu tàbb ko euh, li nga xam ne mooy conseil spécial euh, moom it mu tàgg ak Macky Sall tàggoo bu métti ba ñu foogoon ne sax xëy na ko dootul dellu ñu xëyaat subateel dégg ko fii di conseil économique social et environnemental ba gis nañu aussi ni mu ko fa jëlee ñu gisaat ko aussi mu xëy daal di koy tabbaat encore euh, directrice de campagne élection locale yi passé ba ci législative yi Euh, ba ñu yeew tamit suba teel gis aussi tàggoo bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla bii nag moom ah xanaa nag buñ la naxee benn ñaar ñett ba ñeent juróomeel bi nga wax am sa fulaay dem sa bopp nag bi biñ ci waxtaanee nag xamal ne ma carrément que moom ak Macky Sall moom jeex na tàkk ah mu doon lu lu dal sama xel ndaxte man moom euh, bu doon euh, liggéey ak ku ànd ak Macky Sall kon balaa man sama wàllu bopp ma ànd ak Macky Sall waaw ca njëlbeen mais man gis-gisu Macky Sall doyu ñaareel bi euh, motale na li nga xamante ne moom lañ ko fale woon ndaxte koo xamante ne ba ngay laaj réew mi da nga taxaw publiquement doon xeex lii di coow ñetteelu mandat ñaareel bi ñu jox la réew mi nga ne mankat kat euh, li nga xamante ne mooy sama bëgg-bëgg mooy mandat bii ñu ma fal mooy moo wàññi ko def ko juróom juróomi at au lieu de juróom-ñaari at ba ko déposé conseil constitutionnel saa ñu waxtaan seen biir xamal ne ko carrément que mandat bi ñu la fal mënoo ko wàññi. waaye mandat bi ni ñëw mun nga ci def juróomi at kon mu doon ñaari mandat léegi nag matal na sëkk lan la ñu mën a yaakaar leneen ci Macky sàll amul leneen lañ mën a yaakaar ci moom ba looloo tax ñun doxal Sénégal ñu jël suñu matukaay yu mot sëkk tàmbalee liggéey ci gox-goxaan yi ci région yi ci fépp ci Sénégal képp kuy kilifa diine képp kuy politicien ak foo munti bokk ba ci Macky sàll ba ci Ousmane Sonko danañ ñëw waxtaan ak yow ngir jàmmi Sénégal ngir intérêt yi donte nag bu ñu bu ñu tollee ci nga fa xam ne fa la ñu war a décider danañ xam ne incha allah bonne position la ñuy am loolu daal laa jot waxtaan ak soxna Aminata Touré. waaw ci loolu lay des euh, donte sax annoncé nga ne peut-être am amaan ngeen ànd ak si nga xam ne moom mooy. Euh, coalition ak euh, Mimi moom tam lim nar a taxawal mais candidat ngeen euh, candidat ngeen bëgg a doon ci élection présidentielle. incha allah doxal Sénégal doxal Sénégal candidat lay nekk bu neexee suñu bopp te ñun dañu taxawal suñu coalition bu tudd doxal Sénégal képp koo xamante ne da nga am coalition. politique wala parti politique danañ ñëw waxtaan ak yow xool naka la ñuy lëkkaloo yow ngir nga mën ñoo fekk si ndaxte ñun dañuy indi offre bu bees offre bu bees bi ñu indi nous sommes pour la république la restauration de la république d'un état de droit lépp loo xamante ne fondement la luy doxal réew askan wi institution yi ngir ñu mun a dëgëral Sénégal ba ëllëg mu mun a am xar kanam gu bees ci bitim réew ndaxte jamono yi ñu yi ñu tollu bourse yi Sénégal woy gi mu am bitim réew du woy bu rafet woy gi mu am du woy bu rafet fi mu ne nii dëkk yi ñuy jege ñëpp képp koo xam ne xam ne Sénégal loo ko wax mu ne la Sénégal am na tension bu rëy rëy rëy bu fa am ci diggante nguur gi ak ku te loolu nag du suñu wareef ndaxte nguur gi waa benn Bokk Yaakaar ku jegi di Yewwi Askan Wi du ñoom ñaar kese ñoo nekk Sénégal am na ñoo xam ne seen yoon newul ci politique. am na ñoon ñoo ñoo xamante ne lijjantiwuñu politique am na ñoo xam ne saa yu ñu xëyee ñu ngi xool du ñu suturale seen njaboot jéem a seen kër ñi nga xam ne dañuy xëy suba teel dem jaay ñii xëy dem dawali ñii xëy yor seen transport ñii yor seen petit commerce seen yoon nekkul ci li Macky sàll di liggéey wala di Ousmane Sonko di liggéey ñoom yaakaaruñ ku dul suñu borom te it suñu borom googu ñun moom lañ jiital doxal Sénégal ngir mun a soppi xar kanamu Sénégal jiite Sénégal ci dëgg yor ko ci dëgg xamal askan gi li nga xamante ne moo ñu tax a jug ak niñ ko nar a defee ak ñoom parce que ñun on veut passer d'une autre forme de politique nous voulons passer de la politique de l'information à la politique d'implication boo ko defee askan bi kenn ku nekk mën ci gis seen bopp incha allah. Amadou Karate Diop ma ma ngi lay jaajëfal xanaa rek kon di bàyyi nga looy bu fekkee sama naataango amul lu mu la laaj rek mën ngaa tëj macha allah jërëjëf euh, soxna Astel noonu la euh, voilà donc euh, kontaan naa trop ci invitation bi am mbégte lool ci seen émission yi nga xamante ne moom ngeen moom ngeen amal te muy muy émission bu am am solo bu may seetaan saa su nekk d'ailleurs sax sëñ ko mën feen ci laay amee ci laay suivre yenn information actualité yi ba ci info matin tënku xibaar yi nga xam ne moom lay def te mu am am solo man nag sama kàddu gu mujj bu mujj maa ngi koy lancé Sénégalais yi. ci leen rek laa koy tënkee muy jàmm jàmm moo yor réew jàmm moo yor ëllëg jàmm moo yor gannaaw ëllëg kenn ku nekk ci ñun bu fekkente ne saa yoo xëy suba teel teg say tànk yi dara jotu la li ngay jiiteel wax mooy alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant suñu borom mais ginnaaw sant googu suñu borom dafa am lum la sas mooy que ba ëllëg nga nar a fanaanaat di yeewaat danga fexe ba da dox jàmm leneen loo dox lu dul jàmm te muy safaan na yow yaa ciy jiitu moo tax it d'ailleurs sax am na lettre ouverte bu ma jëgleel Ousmane Sonko tout récemment maa ngi ko ciy ñaan mu am un peu de grandeur et de hauteur te mu xam ne que politique moo demee nii te politique boo ciy dugg il faut se dire que tu dois être à l'autel du sacrifice da nga war a waajal sa bopp ci lépp ci anam yépp ba tax na ma koy ñaan moom bi nga xamante ne aspiré na ëllëg jiite réew mi te aussi maa ngi koy ñaanal donte candidat la à l'élection bu sunu borom defoon ëllëg mu nekkoon njiitu réew mi. mu montrer mu diriger Sénégal par l'exemple te diriger boobu par l'exemple ça commence dès à présent buñ ko wooyee tribunal na sañ si ni mu gën a jekkee daal di dem ak gàngooram te bañ fi indi attroupement wuyu yoon yoon àtte mu jeex ak jàmm kon maa ngi ñaan Sénégal yi yëpp incha allah nañ dox ci jàmm wéy ci jàmm di waxtaan ci jàmm bañ fi indi par parloo bañ fi indi ay xéewoo ak ngaayoo ndaxte ñun ñëpp ay mag ak rakk lañ bu Sénégal yàqo ñun ñëpp ci am wàll bu Sénégal dafa ñun ñëpp lay jëriñ maa ngi leen di gërëm di leen sant waa seen info am lool contentement ñëw ci émission bi euh, vraiment di leen ñaanal avancement bu rëy te incha allah am na ci yéen yaakaar ndaxte ay ndaw yu mën seen liggéey ngeen yal na leen yàlla sàmm mottali seen yéene di gërëm yéen waa téléspectateur seen info yi. amiin amiin Amadou Kartel Diop di la jaajëfal bu baax a baax kontaan nañu bu baax. Euh, Bouxine eh, waaw soxna Astel di la jaajëfal bu baax di jaajëfal it eh, suñu invité bi nga xam ne tey moom la ñu amoon muy Amadou Dakar tey yaakaar ne ndaw la la wante macha allah ndaw la boo xam ne euh, xam-xam bi set na te nay nee nañ ndaw bu loxoom setee moom la bokk ak ay mag ñu nit li nga xam ne mu ngi koy yóotu ñu ngi ko si ñaanal incha allah tam yàlla matalal ko di jaajëfal suñu caméraman di jaajëfal mbokk internet yi ñuy bàyyi xel saa su nekk di leen jox daje rek kon ëllëg. ñu lay jaajëfal si teew si teewaay bi Amadou Kartel Diop di am mbégte ak contentement ba tey yéen a ngi si seen yor-yoru Sene Info mu amal ko ak sama naataango bii di Bour Sine Coumba Ndoffène si loolu ñu leen di jox dig daje ba suba incha allah jërë ngeen jëf.